sant yàlla d'abord julli ci yonentam bu tedd bi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa di wax suñu mbégte bu rëy bi nga xamee ne ñëw nañ fii ci dëkk bu sell bi euh, xalifa bi sell bi dalal ñu teg ñu ci loxool euh, rakkam ju baax ji euh, sëriñ Babacar Sy abdu doomam sëriñ Abib Tewe ak délégation bi ñu ànd ak yëpp ngeen leen di gis waa Yewwi Askan Wi ñu waxtaan waxtaan wu xóot boo xam ne fooguñu woon sax ni nii lay demee ndaxte guddi yonant bi nag moo tollu noonu borom bés bi nga xam ne fi lañ jëm moo tollu noonu li ñu wax sëriñ bi mooy lépp xaj na ci. yonent bi xajoon na lépp moo tax comme ñun dañu am ci li ñuy am yëngatu am loo xam ne tamit daf ñooy yitteel waaye lépp lislaam a ko lar parce que ay lañu mais dañoo nekk ci wàllu politique jëm ci wàllu état ñu waxtaan ak sëriñ bi li nga xam ne moom la ñuy toog waxuñ ko ko ngir dañuy ñëw di jooytu waxuñ ko ko ngir dañuy ñëw di clamé waxuñ ko ko ngir dañoo tiit mais comme yàlla dafa def mu nekk kilifa te ñuy njabootam ëpp na ñu ñëw ci kanamam toog te àggale la ca mooy nekkin wi nga xam ne suñu doomu ndey Ousmane Sonko nekke na ko te bés bi bañu àndee ba léegi mi koy soog a rate te ko ko teg du dara lu may bëgg réew mi Sénégal moom boppam li nga xam ne moom moo fi nekk ba léegi ñuy wéeru ci bitim réew te war a mën a téye li ñu moom mu di ko ŋàññ di wax ne du yoon boo bëggee dundal sa askan nga dem wéeru bitim réew boo bëggee jox ndox mu sell sa biir sa askan nga dem weeru bitim réew boo bëggee faj sa askan nga dem wéeru bitim réew xam-xam sax boo ko bëggee sàkk nga dem weeru bitim réew ñu fab administration ne ko li nga bëgg du fi am ak puissance administration dóor ci kaw dax ko inspecteur des impôts et domaines ne ko li nga bëgg du fi am fab force de défense et de sécurité dóor ci kaw ne ko li nga bëgg du am fab le pouvoir judiciaire avec toute sa puissance dóor ci kaw tey ñu ne dañuy tas partim dem ba ne sax moom ci boppam mënatul a nekk candidat ci réew te réew mi kenn ëppale wu ko ci réew mi kenn ëppale wu ko ci ñu ne loolu kenn dafa xamul lan la mën a jural réew mi ëllëg parce que koo xam ne fii ay million ndaw ñoo nekk sa gannaaw am yaakaar ci yow ay millions yoo xam ne africain lañu aussi am yaakaar ci yow. dayo boobu bu la ko yàlla defee ñi nga xam ne ñoo yore ngóor gi jiiti réew mi am na noo xam ne moom lañ la war a xoolee tam moom lañ la war a traité ndaxte muy moom muy ñun waaye askan wi fi nekk yëpp jàmm moo ñu tax a jóg kenn mosu fee woote taal réew taalam réew li ma wax keroog wallaay waxat fii réew mi ku ko bëgg a taal yaay tàkk ndaxte moo sut suñu juddu li fi mag ñi def moo sut suñu judd te moo ñu ëpp doole ba dem léegi réunion sax mënatuñ koo def Déthié Fall a ngi nii président Déthié Fall candidat à l'élection présidentielle moom suñu siège siège am mooy suñu siège buñ fa wootee na def point de presse sax Macky Sall yónnee ñu les force de défense et de de sécurité bu ñu demee siège pur du Serigne Moustapha Sy mu def la même chose. waaw loolu nag ba kañ loolu lépp muy loo xam ne lii lu ñuy dund la ñu gën koo xamal sëriñ bi naam xamoon na ko sax mais fàttali dafa baax gën koo fàttali tim askan wi loolu mu tontu ñu tontu bu rafet bu dal suñu xel bu sedd suñu xol boo xam ne am nañ ci yaakaar bu baax parce que moom yàlla moo ko baaxee mu jabootee ñëpp kon nag fekk dafa jabootee ñëpp bu ñëwee fii ñun ñi ay njabootam àggale nañ ko loolu te dégg na ko alhamdulilahi rabbil alamin Nous remercions Dieu le Tout-Puissant et prions sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en forte délégation de Yewi Askanvi à rendre visite au khalife général des Tidjanes, Serigne Baba Kirsi Mansour, qui nous a reçus à travers euh, son frère Serigne Baba Kirsi Abdou, en présence de son fils Serigne Abibsi. Nous avons eu des échanges fructueux d'une grande profondeur parce que c'est la nuit consacrant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous allons bientôt célébrer. Et comme ils nous l'ont appris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est installé à Médine, il a instauré une cité-État. Et qui dit cité-État parle aussi de politique, parce que ça, il s'agit de gérer la cité. C'est pour cela que nous avons décliné auprès du calife un certain nombre de, de faits que nous sommes en train de vivre, non pas pour pleurnicher, non pas pour nous plaindre, non pas pour dénoncer, mais tout simplement pour constater avec lui des faits avérés. Et parmi ces faits avérés, il y a la situation particulière de notre frère Ousmane Sonko, qui d'habitude faisait partie de cette délégation. mais aujourd'hui tout simplement parce qu'il prône un discours souverainiste pour notre pays. Parce que tout simplement, il prône un discours pour la justice et l'égalité. Le pouvoir de Macky Sall a drainé toute sa puissance, aussi bien de l'administration, des forces de défense et de sécurité, que de la justice, pour le mettre aujourd'hui dans cette situation. Et pire, Aujourd'hui, il prétend dissoudre son parti et le rayer des listes électorales. Or, tout le monde sait que Ousmane Sonko est l'homme politique le plus populaire actuellement, le plus en vue de tous les hommes politiques, aussi, du pouvoir, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Parce que c'est une espérance de millions de jeunes Sénégalais, une espérance de millions de jeunes d'Africains Un homme de cette dimension, on ne peut pas et on ne doit pas, et c'est inacceptable de le traiter de cette façon dans un pays qui se veut démocratique. Et c'est pour cela que nous avons échangé avec euh, le représentant du Khalif sur cette question. Mais il n'est pas le seul ce qu'il va advenir de ces candidats tels que Détiéfal, Mme Aydembout qui est absente. Malik Gakou qui absent, il y a une terreur qu'ils veulent abattre sur la coalition Yewwi Askan et au-delà sur millions de jeunes. Et c'est cela que nous sommes venus porter encore à la connaissance du Khalife pour que notre pays, comme l'ont voulu des grands hommes, des grands hommes, des saints comme Cheikh euh, Al Maliksi demeure un pays stable, un pays de paix, un pays de progrès, un pays de prospérité, un pays de cohésion sociale et d'unité nationale. Nous ne sommes pas des violents, nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des vatans Nous ne voulons pas déstabiliser le Sénégal. On ne peut même pas déstabiliser le Sénégal. C'est impossible. Ça ne fait pas partie de notre philosophie et nous n'en avons pas les moyens. Ça ne fait pas partie de notre ADN. Il faut que Macky Sall le comprenne. Et Ousmane Sonko est dans cette même logique que nous tous. C'est pour cela que euh, nous sommes confiants que sous peu de temps, il sera libéré. parce qu'il mérite d'être libéré et il doit être libéré. Et que nous avons ici confiance que la justice lui donnera raison au sujet de la dissolution de son parti PASTEF, de sa candidature aussi. Et c'est cela la meilleure voie pour que le Sénégal reste un pays stable de paix et sécurisé. Je vous remercie.